asalaamaaleykum mbokk internet yi di leen nuyu ku ci nekk si sa tur ak sa sant te di leen dalal jàmm aussi eh, ci seen deuxième numéro wu émission laaj ma tey ñu am gan goo xamante ne eh, kilifa la eh, doon itam koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci mim réew muy Mourchid yan Thiam. Imaam nuyu nañu la. Euh, fay naa la. ma bàyyi la nga nuyoonteeg suñu internet yi. jërëjëf maa ngi leen nuyu mbokk yu tedd yi. di ñaan yàlla mi dara tawul mu yokk jàmm ji ak am am bi ci barkeb rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amin amin imam yow yaay njiital euh, commission bi nga xamante ne moom la ñu dénk ñu war a saytu lépp lu jëm ci weer bi mhm. waaye ñu gis ne euh, at yi passé yëpp yëpp Sénégal dañuy euh, am xaajaloo ci bés bi nga xamante ne moom la ñuy tàmbali mhm. di woor loolu sax tax am ñu ne imam yan Thiam xëy na dafa war a jóge ci bopp commission boobu boobule mhm. ñooñu lan nga leen di tontu waaw xam naa man de wax dëgg yàlla yàlla mënatuma ma jóg ndax teqalikoo bi amoon ci diggante kilifa yi diine ba bu ñu jubloo ci weer kilifa yi diine yi daawuñ ci àndandoo ñoom ñëpp man sax dama ñëw ci mujj gi wuute googu yàgg na lool daanaka depuis mille neuf cent soixante bi mu weesoo tubaab yi dem ñu am indépendance ci la wuute gi tàmbalee amee mm. ndax bu njëkk moom France yi fi nekkoon ñoom bu weer bi daan feeñ ak feeñul ñoom la def ay télégramme rek yëgal ko kilifa yi diine yi ne weer feeñ na barab sàngam weer feeñ mm. bi ñu demee nag ñoom mu rek ci réew mi ah, léegi kon diine ji dafa am ñu ko ŋànk mm. ñooñu ñoo koy doxal ne nañu ah am wuute Abdoul Aziz Sy Dabakh demoon na ba mer mu wax ma man mm-hmm. bi ma fa demee di ko wax nañ def benn commission mu ne ma bul ci dugg bul ci dugg man bu koor jotee wala tabaski may téléphone ñu xam ne ci affaire feeñ weer yu lay wax su may naat na koy sax du ma woyu dañuy raccroché kon loolu yëpp senegal dund na ko ci ak wuute mm-hmm. ci kilifa yi diine yëpp ma dem ci ñoom mm-hmm. bokk na ci ñi ma dem pour diisoo ñoom ci commission bi sëñ Saliou Mbacké loolu moo nekkoon xalifa xaadimul Moustapha sëriñ Abdoul Aziz si ni ma ko waxee sànq mm-hmm. Ceerno Muntaga Taal boobu moo nekkoon xalifa bi ma dem ci suñu Abdoulaye Thiaw Laay maam Alassane boobu Abdoulaye Thiaw ñëwagul mm-hmm. nii laa ko toppee bu dem ci kilifa yi ay xalifa yëpp kenn ku ne maa toog ak moom man a daal dama doon def benn émission ci rajo sud la woon ñu ubbi téléphone yi xale yi di ma téléphone mat nañu treize xale la treize li ma doon wax ñoom ñëpp su ma ko bëggee résumé résumé mooy nun amatuñu confiance ci yéen kilifa yi diine yi parce que tegam weer rek feeñ na feeñul mënu leen ci d'accord loolu ñun amatuñu boolootuñu leen pare mën a leen xaw naa mer waaye nag wax ngeen dëgg léegi nag da bu leen ngeen yaakaar ne kilifa yi diine dañoo buggulu juboo juboo ci weer nangam nangam ngir ngir bañ diine ji wala bëgg bëgg sëriñ fi bopp rek mu gën leen diine ji waaye man danaa dem ci sëriñ sëriñ bi moom la yàlla dénk diine ji tey ñu war koo doxalee na ko Muhammad daan doxale kon sañu ñoo bañ a àndandoo sa normalement itam war nañoo mën a xam lu ñuy def ba àndandoo sëriñ si itam bopp bëggante nañu ndax koo bokk koo bokk bëgg bëgg war ngeen kon nag leen na ko te man fi li ma gis mooy seeni ndaw ñoo doxul yónnante seen biir sëriñ si duñu génn waaye seeni doom ak seeni seeni jarbaat ak seeni taalibu ñoo war a jóg dox lii pour que sëriñ sëpp di déggoo di yëgoo ñàkk yëgoo rek la foofu nag laa décidé ma ne kon danaa def as commission soo xam ne sëriñ ci ne dana ci am ndaw ba bu ñu dajalee dajaloo di def di seen weer ku jóg wax sa baay wala wax sa sëriñ boo ko waxee dana nangu Euh, léegi euh, ci yow lan moo waral ba léegi nii mënuñu fexe ba sénégalais yépp parce que ñoo bokk diine ñépp mën a woorandoo ci même bés bi lan moo ko waral. loolu mënuma koo xam xam naa ne daal man li ma taxoon a jóg mooy sëriñ si moom bañ a wóoteeti ci seen biir parce que ñoo ngànk diine ji waaye individuellement nag kenn ku ci neex am nga si liberté bopp xëy na jox nga sa bopp liberté di ko defee ne la neexee moo tax am ñoo xam ne. pour ñoom Arabie Saoudite bu wooree war nañoo woor bu wooree war nañoo wori te réew mu ne dafa war dafa war a séentu aw weer ci ci biir réew loola nag tey da ngeen dul topp affaire bi ni mu war a demee gis nga tey amul benn xalif général bu wuuteeg sa morom ci weer buñ koy um wala ci weer buñ koy do buñ koy buñ koy bu ñuy pare weer kenn musu cee wut ci xalif généraux yi man nag loolu moom a yitteeloon yitteelu mu woon ne dama war a Sénégal yëpp dajaloo ci benn di déggoo di ko defandoo man sëriñ si wuutee ci diine ji te wuute woon ñàkk yëgoo la ma bëgg nag ñuy yëgoo lu war a xew ñu yëgoo ci ñoom ci seen biir defandoo ko loolu nag moom moo taxoon moo taxoon commission bi jóg man nag sama bopp ma jóg dox ci ba commission bi am na ci réussir cent pour cent mënoo maa wax ban xalifa moo wuuteeg beneen xalifa ci réew mi wala ban xalifa amul. ci loolu sax ak am imaam yoo xamante ne nee nañu ñoom démb euh, la weer bi feeñ ba ñoom démb la ñu commencé woor am aussi ñu nekk tuubaa ñu nekk weer bi boo ko xoolee xam ne du weeru benn fan. waaw xam nga. weer bi moom benn weer rek la kon ki ne weer bi feeñ na démb ki ne weer bi feeñ na sax barki démb ak ki ne weer bi feeñ na tey am na ci ko waxul dëgg yàlla nag daf noo yombalal mbir yi nee sax boo demee ba kenn kot wax ne weer feeñ na ku ñu ko wóoloo bu maandoo ñëpp mën nañ ci sukk sukkandiku loolu bu bu maandoo baatu bu maandoo daf ci am solo bu maandoo lépp ngi ci mooy bu fekkee ne la mu wax dëgg la du intérêt tax mu wax ko bu fekkee ne est-ce que moom mën na séenu moom ci boppam wala ay nit ñoo ko koy wax te xamul ñooñu ban intérêt lañu am ci wax ko di ko séenu nañu gis nañu wér wala déet yooyu yëpp ngi ci biir. yaa ngi wax sànq ci sa biir wax ni danga sol sa daal dem ci kër kër diine bu nekk. waaye ñu gis tam euh, ñoo xamante ne yéen boo leen joxee information comme quoi weer bi feeñ na ñoom dañu naan ndigalu seen sëriñ lañuy xaar. Euh, tax am ñuy laajte ndax euh, commission bi le bépp këru diine fi ci Sénégal am na fa représentant. kooku xëy na am na. Mhm. waaye bi commission bi taxawee ak léegi loolu amatul. amul kenn koo xam ne ci nun commission bu nu toogee. donc këru diine yu Sénégal yëpp am nañu représentant ci biir commission bi. am nañ ci représentant dama ko wax depuis quatre-vingt-seize maa ngi koy wax ci rajo ak ci télévision yi loolu. ñoom ñëpp dañ ci am seeni représentant tout sans exception ci biir commune bu ñuy daje nag dana am ñu am ngànt du ñu ñëw waaye dañ naan li ngeen di gis ak décision bi ngeen di jël noo ngi ci ànd. léegi pour bañ lënt lënt yooyu ngay wax comme yéen yéen a fi jiitu. Mm-hmm. est-ce que gënul woon yeneen euh, association yi nga xamante ne am nañu léegi ñoo ñeneen ñuy euh, saytu weer bi est-ce que gënul woon yéen ngeen woo leen euh, boot leen ci seen biir nga xamante ne xëy na ëllëg benn benn fan rek la nit ñi di bokk di ko door a woorandoo. waaw pour ñun mën nga mën nga sax wax li li nekk ci xel mi te génnee googu waxoon nga ko sànq moo di ne commission bi est-ce que waruñoo bàyyi ñeneen ñëw est-ce que du am ñu leen war a remplacer man kay bu fekkee ne seen kii bu ngeen ko sosee ba pare ngeen dem ba war a màggat wala mu ne ku fi dëkk ñaari at na bàyyi keneen ñëw te fekk yéen yéen a sos seen mbir ba xam ndax da leen ko bàyyee àndandoo bi àndandoo bi am na wax dëgg buutee mhm. amatu fi waaye dama xalifa xalifab si si Mustapha xalifaab Cheikh Moro Fuutiyu xalifaab Baye Niass kàbbeer gi nga xam ne ñoo dalal ñoo ñoo ñooy njaati gi mboolem ñi néew Dakar ci capital bi Madina Gunaas nga xam ne diine rekk ko ñor ba tax mu génn fépp dem ba ca àll ba Madina Gunaas te gor àll yi dafa dëkk ngir diine ñooñu mosuñoo wute ak commission dama ni ñii ñëpp bu ñu daaw dajale nekk ci dara kenn ne man la ma def laay def waa ji kooku ñun mënuñ ci dara. kon nag àndandoo bi am na bennoo bi am na ñii lu ñuy wax ci diini ji moo am gouvernement bi lu mu wax ci réew mi fii rek tasaguñ ko moo fi am. ci julli yi nga dugg léegi sax ci la ñuy des ndax euh, ni muy ni ñuy amee féewaloo ci date bi ñuy commencé julli yi tamit noonu lay faralee di am ñaari fan wala ñett waaye ñu gis ni Arafat moom sénégalais yëpp ñooy bokk jour bi nga xamante ne moom lañ koy def lan moo waral loolu. Arafat du feet Arafat bés buñ ci jaamu yàlla la muy juróom ñeenteelu fan ci weeru aj màkk am na ñuy ñuy tëkk sax ne ci arafaat ji gannaaw ci tabaski arafaat mooy juróom-ñeenteelu fan ba kooku moom ci weeru tabaski moom bésu arafaat rek la ñu war a seet pour mën a déggoo fii or ña koy wax ndeysaan dañu dul seetlu la ñu jàng dañ ko réeré wala da boog dañ ko révisé wul dañoo révisé wul la ñu jàngoon ba xëy di waxandook nit ñi rek ba faf dugg ci wax joo xam ne xam nañu xam nañu dugg arafaat bés bu ñuy jaamu yàlla la kii aj ci kii aj boo nekkul Arabie Saoudite Arafat warula ah, kon ñi ajiwul ñi nekk fii Sénégal ñoom Arafat waru leen. waaw bis boobu. waaw da seet. ñooñu bu ñu jisee seenu weer juróom-ñeenti fan xëy na fi mu nekk fi juróom-ñetti fan boo waree juróom-ñetti fan du sotti bu la neexee nag baax na Arafat bis la bu yàlla baaxal. mu nekk ci mu nekk ci biir weer bi bu ko Arabie Saoudite di woor su la deexee nga woor comme daggan na nga woor ci bés bu ne ngir jaamoo ko borom bi moo ko Arafat ci yëpp waaye Arafat kenn du ci sukkandiku ne kon ba comme ku bés bi mooy le neuf lay doon ci mboolem adduna si déedéet mhm. leer na nañ léegi euh, laaj bu mujj bi mooy ndax euh, Mourchid Iyane am na yaakaar ci ne senegal dina delluwaat ba ñëpp di euh, ndoo di ndoo ci benn fan bi wala di doorandoo kor yi man kay bi ma ko xamee loolu yàgg na nee naa la wuute amatu fi ci kii fii si uute googu rek moom a gënoon yitteel ba tax bay jóg commission mbooleem ñi ma la wax amul ci kenn kuy wuute ak sa morom ci tey la benn fan wala tey la trente amatul ñeneen ñi ñenn ñi ci des kenn ku ne am nga si liberté def mënu ma ci dara ñooñu man sañ nañu bu Arabie Saoudite jullee ma julli wala sañ nañu bu ñaami gisee weer bi ma gis ko kooku man mënu ma ci dara li man daal li ma gënoon a metti mooy ji jiite diidi ji nekk ci réew mi ñëpp toppaleen di leen tuuti ko doon man sax di leen jaamu waaye ngir bëgg leen ñooñu war nañu mën a wax ne lii nii la ci diidi ji ñooñu gannaaw jubóo nañ ci man man wax dëgg yàlla sama mission àgg na su ma neexoon sax ma tas commission bi fi mu ne parce que lépp gëm naa ne ñii dootuñu wutee li ci des nag ku gis ñetti nit ñuy julli fële wala juróomi nit ñuy julli fële ñeneen nga ne am na ñaari julli ñetti julli loolu yéen a koy def yeneen yeneen yeneen média yi am na ñaari julli ñetti julli xam naa ndeysaan yéen da ngeen xeebul kenn rek amul loolu itam baax na xeebu leen kenn beddiwu leen kenn képp nag lu ne gënal mooy loolu même yàlla même yàlla ci alxuraan ji la ko waxee de mu ne su ma neexoon ñëpp àndandoo su ma neexoon ñëpp àndandoo bokk toppandoo leen na bokk defandoo leen na ñëpp déggoo waaye loolu amul waaye nag li ko gënal mu teg ci li ko gënal nag mooy ñu àndandoo waaye su ma neexoon man ñëpp àndandoo kon nag bu kilifay diine yi àndee ci diine ji ñi ci des waxuma waxuma du ñuy nit waxuma nañ leen foowee fal déedéet yow waxal lu baax li fi nekk rek leneen lu baaxul nga fàtte ci réew yëpp nag réew yëpp dafa am loolu d'accord euh, Imaam ñu ngi lay euh, remercier ci sa disponibilité ma bàyyi la nga tàggoo ak suñuy internet ok maa ngi ci bëgg lool te it li mooy jihaar jihaar yonente sallallahu alayhi wa ba mu demee xeej ak ña ko na ko doo fi julli doo fi woor ndax ñun suñuy maam xamuñu ko mu toog treize ans ci màkk ñu dogu ko ne kii déggoowala tul ak ñun bokkutuñu ak moom xalaat dafa naan benn yàlla korte boo am wax wax wax ñi mu àndal jëm ñu jàppaleen di leen rey di leen toroxal di leen nangam ñëw na ko yow xanaa danga naa ab yonente lu tax nga naa ab yonente nga ba pare nga ñëw di def di dëng lii ñu lay rey ñu di rey ñi nga xam ne ñoom nga àndal di leen toroxal di leen génne lu tax nañ xeexi di nañ jóg ak bu leen bu ngeen bëggee xeexi dem leen xeex man de yàlla waxagu ma naa xeex te li yàlla waxul nag du ma ko def yàlla na bur yàlla jàppale leen téye leen nga xam ne Seydou Diouf. Euh, voilà mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci seen émission laaj ma di leen jaajëfal bu baax ci seen kóolute di remercier aussi bu baax a Mourchid yan Thiam ci disponibilité bi ak leeral yi nga xamante ne yëpp indil nañu ko tey